man de fii ñu fekk nii mooy bës bi ñuy wax ne Touba ca kanam ñoo ko fiy def di sargal jigéen ñi a ah, ñu xamoon ma nag ne ci damay liggéey ci lu mel ni waañ a ah, ñu saytu woon nag ne xañ na dama amoo àndoon ak ñoom di saytu daanaka Touba ca kanam boo ànd ak ñoom dugg ci waañ wi ñu xamal ma ne bés bii di ñaam yaakaaruñ ci kenn ku dul man ci wàllu togg gi te ah, loolu lu ñu wax dëgg la ndax man bu ñu yaakaaree kenn ku dul man ci yoonu Serigne Touba wala bésab Serigne Touba. ak cant laa koy def kon buñ ma ci wooyee ne ma kaay jàppale leen ci liggéey Serigne Touba bi dama koy def ak mbégte def ko ak cant moo ma indi ci bés bi boo tax ma jàpp ci liggéey bi. lu liggéey bi tëddee fi jamono ji si waañ bi ndax tàmbali ngeen euh, biig wala tey ngeen ko tàmbalee def ci wàllu euh, bernde ak yooyu. waaw bu fekkee wàllu bernde moom tàmbali nañ ko depuis alxames ndax depuis alxames ñu am na ñuy ñëw si euh, fii ci ci barab bi di fi yendu di toog ay ñam di añ. ko fi ku fi ku sa wërsëg nekk boo ci xajee nga jot ci waaye euh, benn bi gën a wóor na te gën a jàpp ni moom te jii la ci sa dimanche bi euh, la euh, démb ci démb commencé ci ngoon ba tey jii di samedi bi ñoo ngi ci benn bu baax benn bi nag maanaam toll na ci loo xam ne nii maanaam jël nañ fi lu toll ci juróomi nag yoo xam ne nii lewetal nañ leen fi togg nañ ci ay ginaar it lu mot ñaar téeméeri ginaar yoo xam ne nii ci sama loxo bii la jaar togg nañ fi ceebu ceebu yàpp yoo xam ne nii ci sama loxo bi togg toog fi togg boo xam ne ni ñu koy wax mbërëxe maanaam ñi ko xam na bëriwut waaye daanaka daal toggam murit la ndax boo koy togg di nga wut lu toll fukki kilo yi ndaw fukki kilo juróom ndawal di nga wutit lu ma toll ay ah, fukki ginaar yoo xam ne moom nga koy boole eh, togg bi am ay carotte am ay nawe macha allah daal toogu bi tooga murit la bo maanaam fi mu nekk nii mooy problème boo xam ne nii ah, ñu koy xëccoo ba ñam yooyu bàyyi ñu bàyyi ceebu yàpp ba di xëccoo ñam yooyu kon ñoo ngi ciy delloo santaat suñu borom bu baax a baax. Euh, ci liggéey bi tamit gis ngeen ni euh, mbooloo gi takku est-ce que yaakaaru ngeen mbooloo mi xaaraw ngeen ko ak tamit ñi fi ñëw tey jàpp ngeen gi ñëpp daal mate na la matala na. waaw lépp dina mot incha allah ndax yaakaar naa ne li fi nekk añ moom ñëpp dinañ añ ñëpp dinañ naan ñëpp dinañ euh, dinañ barkelu